Diamaguène Sicap Mbao nekk ab yoon bi nga xamante ni ñu ëpp ci askan wi fa lañuy jaaree ñi fi dëkkee di traversé bés bi yàlla sàkk tali bi ngir mën a dem doxi ji seeni soxla gannaaw bi nga xamante ni yëkkati nañu ay passerelle yu faree woon foofu ci boobule gox. bu yàggul rek la dindi passerelle bi taxu ko yàgg noonu. Euh, waaye bu ñu ko dellu si waatoon daal yaakaar naa moom mooy gën a baax ci population bi. du ñuy traversé tali parce que dañu war a dem vacances ji suñuy préoccupation donc bu ñu waree dem de l'autre côté ñu bëgg a dem Pikine wala ñu bëgg a dem Dakar foog ñu traversé pour mën a jël oto pour dem quoi. ñoom ñi lay dëkkee si bile gox ñi ngi ñaawlu bu baax a baax yi lay passerelle ñi fi dindi tey sóoraale bu baax ay risques yi nga xamante ni war na leen fee xam ne dañuy dégg si oto da leen fël wala nga nga gis ay kaaw moo rek laa war ay jagarta yoo xam ne ñu mbëkk ay maire fii yoo xam ne mën a jéeg duñ mën a daw oto duñ mayante si noonu ñi ngi sàkku si transporteur yi ñi leen di sóoraale bu baax a baax gannaaw si loolu ñi ngi ñaan état bu Sénégal mu jër ay matukaay si nu mu gën a gaawee ñu daw ndànk daal di mooti woon ndaxte nit ñi amoon na passerelle te amatul passerelle instant bi da ngay jéem a daw oto yeeg moto yëpp di njëkkalante daw ñu daw ndànk rek daw ndànk man ni parce que état moo moo moo mooy conditionné gars yi dindi affaire bi parce que li wurul ko waa parce que bu amoon nit ñi jaar si kaw di jàll moo gën a rafet comme que ni ñuy jégee ndax oto yi tout le temps dañuy jaar fekk ëllëg daw. banlieue bu ndakaaru ñi faral daan fi nemmeeku ay passerelle yu takkoo takku mu daan permettre yu dëkkee si yile gox ñi mën a traversé yile yi waaye fii si Diamaguène wuute na lool ak yeneen i gox ba tax na ñoom ñi le ñi ngi artu tey ñaan autorité yi ñu dimbali leen si nu mu gën a gaawee.